di len wax ngeen abonné ci chaîne bi di loxoy du monde tv te bés cloche de notification bi ngeex ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye tam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax loxoy du monde tv yeen la fi nekkal ngeex di jaamu seeni soxla assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokk yi yeen soppi yeen xarit yi ma ngi leen di siyaara gannaaw bu ma leen siyaara may ñaanal ñi jiitu alaaxira yàlla may leen yàlla may leen àjjana may leen àjjana yeggan ci àjjana yi tey nag waxoon naa leen dama fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan bi nag du gudd man nag man maay Cheikh Ousmane Pouye Tadjou Dine waxtaan bi mu mu ngi aju ci suñu mbiru réew mooy ne li ma leen di ñaan Sénégalais yi bu ñu gën a ñàkk jom ci monde bi Sénégalais yi bu ñu gën a fulla ak fayda ci àdduna bi li ngeen nekke li ñu nekke teguñu ko fenn xam ngeen ni ci caaxaan lañu nekk ci li tëdd ci lañuy ñuy nelaw ndax réew boo gis dafa am catégorie nit ñi gën a néew doole bu ñuy jaaxlee ñi nga xam ne ñoom la yàlla may doole ñu jóg taxawu leen xam ngeen ne fen yi mag yi nekkee di fen ak ñi mu àndal tegu ko fen loo xam ne le moomuloo ko nga jóg nga ne man may dogal ma moom mooy ñàkk ful ak fayda sénégalais yi ak sénégalaises yi li tax ma gën a sopp ma bugg xeet ñu tudde portugais dama dem dëkku portugais yu bari ci Afrique dem na Angola dem na Sao dëkk yu bari daal li gën a gàtt waaye dañu am benn coutume nit bu defee loo xam ne warul dañu koy jàpp yeew ko ku ñëw rekk door maa ngi ko jëkke gis ci Sénégal ay portu ay portugais di ko def ma lool ma ne xale bu góor bi ñu takk di ko door door yu métti yu mel nii ci biir Sénégal portugais bu romb rek jël yet door ci kawam ma laajte mbir mi ñu ne nii suñu coutume la ndax nit boo respectul sawa réew nga jóg di leen foxe li war nga defa loolu le fekk man may jàng ma dox bi gis lu mel noonu ci alquran moo waral ñuy jàpp nit yeew ko di ko sànni ay xeer bi rey ko léegi jël nañu réew mi denk ko Macky Sall mi mu jël benn groupe ndekente Macky jubul baaxul mu jël benn groupe taf ci moom ñu yàq alalu réew mi ñu jàpp waa réew mi di leen rey mu jàpp waa réew mi di leen tëj ñi nga xam ne ñoom lañu yaakaaroon ne kilifa lañu nitu yàlla lañu ñooñu ndekkente ñoo gën a bon waa kër Macky kon nag population sénégalaise et sénégalaise naka lañuy def motax li ma di ñaan fen yi Macky sos kep ci bok bu ngeen ko jappé ben tank bi mu fekki morom mu tank bi len ko fi ci kaw suuf si sos ya soson nak ci kaw Ousmane Sonko xale bu jigéen ba képp koo xam ni ànd na ci ku ngeen ci gis rek bu ngeen mën a jël bakkanam jël leen ko pour defar seen réew la soit muy biir réew mi soit muy bitim réew li may wax dama ko teg ci fu wóor fu wóor ndax ku yàq société bi yàq société yàlla jarul a bàyyi ci kaw suuf dama waxoon ne du tontu ay question tey damay wax ak yéen pour ngeen mën ngeen ngeen mën ma dégg Macky comme bopp bi nekkatul ci moom tiit na ñi ànd moom tiit nañu ñu ne nañu faagaagal benn groupe bi ndax ñu mucc bu benn nit desoon dong ci nitu dëgg yi nekk ci biir Sénégal Macky doo mucc sa njobot du mucc ñi nga àndal du mucc ña ngeen doon nag sosal di leen fenal ñooñu ñooy mucc ndax yàlla du nelaw du gëmmentu amun na bataaxel bu ma yónnoon benn bés bàyyu aji saar ci ay wax fi ñu nekk seen bakkin mu ngi ci xoot muy doom moom moomam moom ci boppam moom mi doon farle ay fen doomam bi nga moo doon def ay fen fu mu nekk muy réew mi muy bitim réew fu ngeen ko gisee rek benn tànk bi mu fekk si morom ba ñu Mamadou Diallo sàcc alalu réew mi ba pare nag sos ay fen teg ci kaw nit ñi di leen rey fu ngeen ko gisee rek na ngeen jël bakkenam dañu ne Ousmane rey rekk lay wax Cheikh Ousmane Tajudeen waaw waaw alquran mooy wax rey te alquran boo waxee yàlla moo ko wax léegi ku nekk mu ngi wax ci côté ay borom droit ay droit yéen ngeen di jaay ñi xam droit yàlla ñu ngi noppi walla dañu ko muuroo xamuñu ko kenn mësul foqli ci suñu biir réew kenn musu ko xelaat nit tiwaawoon dina am ku ko jiite noppi toog ci kaw ay fen toog ci ay complot toog ci rimbaaj toog ci caay-caay kenn mësu ko foog ci moom ba tey egal égal noonu la kenn mësu xam ne kër Sëriñ Touba nit dina mës a toog ci kaw ay fen ne kilifa ga te loolu moo fa nekk moo tax li ma leen sant na ngeen jóg taxaw xeexook ñi dàq man de dina xeex ci lu ma man suma côté suma xeex man na maa xam ban façon xeex laay xa def gaa ñi pour ngeen am jàmm suma turandoo suma jarbaat day bokk ci élection yii cent pour cent ka koy tere nag dañu ko xam li ñuy pexey nañu pexey ñun ñuy pexey dañu xam kan mooy gañe suñu wax yëpp duñu ko wax ci ay vidéo way wala ay télévision Macky mu ngi foox ak bakkenam ñi ànd ak moom ñu ngi ak seen bakken réew boo yaakaar da nga leen mën a noot bu ak sa wakar sax mënul leen noot ñi nekk ci gannaawam di fecc ne jeex na jeex na Ousmane mii day dem élection wala réew mi ñu tasaaru ko tasar ñi ñu ci war rey ñu rey leen ñoom ñu daw tasaaroo allah billahi wallahi taala li ma xam naa ko xam naa fi ñu teg suñu baaram ñun ñun fi ñu teg suñu baaram ñun ñoo ko xam Macky day fo ak bakinam ak ñu mo andal nitu droit yooyu ne ay nitu droit yu mu and ak ñom ku ngeen tassel rek muy bir rew mi wala bitim rew na yem fofu le gaay man maa leen di wo jaru la wacc na ngeen liber sen seen dëkk la ngeen xam say say bi jog mu ndey dem def guerre ci yeneen rew te am rew yu takku senegal ci Afrique te réew yooyu man ñu Macky yaakaar na kër baayam la mu nar a libéré suñu réew ci ay caaxam dina ko fay fay bu cher keroog benn waaye mu ne ma Ousmane de ñu ngi topp photo la man ko ba ci gis ma rendi la wallahi suma la man du ma nekk di xuloo xaw ma xuloo musuma ko def mbokkam yi moom makki mbokkam yi ma nekkaloon ci bitim réew yàgg fa loolu ay kongook feneen na laajte ñooñu bi ñu daan joteek man ñenn toj naa seen bopp yi ñenn ma dëgg seen bakkin yi dafa am chance mosul tase ku mel ni man xotti na biiram depuis longtemps dañu ne yaakaar damay toog man xawma temps di expliquer wala di xuloo yàlla moo ko wax ci alquran yàlla mu wax ay xeex yàlla mu wax reyante yàlla itam mu wax jàmmante Macky bu nguur gi ame doole soo gisee may mere suma collègue yu sëriñ yi lii moo tax ndambay si bala muy feebar te war na jëkki muuru ni toog bàyyi réew muy làkk xana xoolul ci maamam yi Muntaqa dafa yaakaar ne muuru di reex mooy àddina waa kër Sëriñ Tuubaa ñi fi jaar yépp nekk ko amoon fulla amoon diini am fayda Muntaqa jog gis réew mi di lakk ñuy ree bi ree ay comédie nit kon nga xam ne toogaloo ci deru Sëriñ Tuuba ci deru seytaane nga fiite bokkuma xale yi wax dama xam réew mi histoire am laa xam ba mu wóoroon ne bokkaloo ci waa kër Sëriñ Tuuba dinaa la wax sa bopp waaye nag dinaa sutural suma kër ndax sëriñ ji suma kar la bi kon nag Macky dëkk nga ay mbar nañu seetaan fin ba jàppal di tëj nga yaakaar ne ma ne Pastef demul fen Ousmane demul fenn ñi mu àndal demuñu fenn wuure bu am ci réew mi dañu ciy bokk wala di ñàkk sa bakken ak sa njaboot daan naa ko wax ay kilifa yàgg na waaye fin ba dinañu gis li xew yónnal ne nag ñu topp ma koo dégg ne rendi naa ko ci àll bi man la maa leen gën a dof gën leen rakkaaju da ngeen xamagul naa tase kenn ci mbedd bi rek bala nit yi ñëw rek fekk rendi naa la que man ma xam naka laa lay rende ñu ne mu ngi leen dem bu ma lay def si rek rey naa la gaañu ku ngeen tasal ci ñoom rek jarul ngeen di wax asalaamaaleykum bonjour toj leen bopp bi mu daanu ñoom ñëpp nag surtout xale bu jigéen bi aji saar xaw ma nan wut leen ko ci Sénégal wala ci bitim réew fa tabaraka la bu ngeen ko jëlee xëj na yi deex ñu mën a noqi pour xale kontaan il faut kooku le fekk si leen défi bàngo jox nañu leen ko bu nekkee Sénégal am na góor dëgg léegi ma xam ko léegi comme Macky dafa bëgg dimbali yeneen nit ci biir réew di leen jox suñu alal Macky li gën ci moom jarul nag di ko sànni ay xeer ay jamra xam nga ñu mel ni ku ci rey nit rek da ngay dem àjjana waaw kii mu tudde jihaad bi amwaalikum wa anfusikum loolu mooy jihaad man dey la ci man dinaa leen ko defal ba ngeen kontaan du day fox ay golo muuru ñu ne sëriñ yi ñu di ko ñaanal ñi nekk ci côté mbokkam ñi nekk ci ñeen xeet xeet ñu dañu koy ñaanal baax na yéen ñiy fecc nag yéen a ngi tardel seen bopp Ousmane même bu campagne amee am na système booy defee campagne sa nit yëpp dañuy def campagne ay fetel dina bari ci réew mi gars yi waxu naa na ngeen dugal yëf yi ci biir réew mi am na kay fii bu nekk mën ngeen dugal lu nekk parce que dañuy jàkkaarloog ñuy reyanteeg ñoom bakken pour bakken bot pour bot yéen sëriñ yu baax yi nag maa ngi leen di siyaar ndax teewoon am na sëriñ yu baax Touba am na sëriñ yu baax waaye njiit ya fa nekk ñoo bon ba bokk bonaat waaw kenn waratul dox ci ñii yéen ñi nekk nag yéen média bi di nekk di ratatati ay jigéen yu xam ne duñu jigéenu dara ay góor yoo xam duñu góoru tëgg dara ah bàyyi leen ñoo ngay def naa ñoo ngay def na dañu leen di rey xaj yi golo yi lu ngeen di bàkku am na ku ma woo keroog moom mooy wootee moo mooy wooye Chypre mu ne ak ah, góor gi dëgg naa ne Karim dafay dellu ji man ko Karim bu ñëwee alhamdulilah parce que dañ koy jàppale sax mu rembourse suñu xaalis dañu koy jàpp itam li tax moom ak baayam rey ay nit yu bari bari bari charia dëgg droit dëgg la indi teg ko toroxal la jël na baay mu teel a deex ndax baay bi war nañu ko joxoñ ay paak même bu ñu ko renlu bakki ñi ñu rey am naa suma mbokk bu ñu ci rey ñu tudde ko mu Mamadou Diop ndeysaan moo doon nodda ci l'obélisque ndeysaan yéen waa Mbour yéen waa Sandiara yéen yëpp maa ngi leen di koy jaale encore ak ñi fi gaañu yëpp ci tàngu Abdoulaye Wade maa ngi leen di jaale yal na yàlla may leen àjjana gaañi tey dama waxoon ne dama bugg waxtaan ak yéen mais dafa am yoo maa ngi koy dajale ci ay renseignement dinaa dellu waxtaan ak yéen waaye nag para para sungu xeex bi moo gën a bari ci man jamono yi parce que xeex day am ci bitim réew ak biir réew kon maa leen di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jàngan jëf ki doon wax Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine la waaw tey nag dama naa dal waxtaan ak yéen moo tax ma waxee nii waaye incha allah dina baax jàngal jëf